képp koo xamante ni bëgg nga liggéey ku ne il faut nga soxla formation koo xamante ni tamit bëgg nga entreprendre il faut nga def am formation donc loolu moo tax ñu def la forum de l'emploi la formation et de l'entrepreneuriat pour la région de Thiès nag bon ñun Thiès lañu dëkk donc comme léegi dañoo ñëw dëkk si mënuñu tamit lu dul xool nan la ñuy participer pour le développement de notre région ñaari junni demande yoo xamante ni dañuy ut liggéey yooyu nag ñun suñu bopp sax mënuñu ko matal waaye nag ba ñu xamee ni mënuñu koo matal dañoo woo direction de l'emploi ñu woo ANPEJ pôle emploi entrepreneuriat ñu ñëw wax leen ñun fi ñu toll donc ñoom it tamit ñu expliquer leen ko ñu d'accord ànd seeg ñun dégg ngeen ko léegi léegi nee nañu am na ñuy def te duñu continuer mais nekkuma fi pour baisser les bras nekkuma fi pour dara parce que dama ko def pour une cause noble dama ko def pour jeunesse bi pas pour def politique pas pour post politique pas pour am place politique politigalu ma kenn sama bopp laay politigal mooy ndaw yi laay jàppale pour ñu mënal seen bopp dara